bismillaahi ma fas yéeneeti yéene juray ba faf marsiyaaleeti bismillaahi ma fas yéeneeti yéene juray ba faf marsiyaaleeti qalbu kaawu tey Cheikh Sidi Moutar Mbacke Balla laay jooy. kon juróom-ñaareelu xalifa Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul di Cheikh Sidi Moutar Mbacke fii ci guy mbind nekk bërëb boo xamante ni Sidi moo ko fàggaloon boppam ni su wàccee ab liggéey dañ ko jëbal boromam foofulee defoon fa ab bardaas joxe ndigal ñu fay wàcce ay kaamil tey jile bërëb boobu la liggéey ba door bërëb boobu la liggéey ba tàmbale na ñu gis fa ay magi murit ak taal bi yoo xamante ni Sidi ñooy saytu bërëb boobu le ci kaw ñooñee am na ñu jot yëkkati seen kàddu pencum guy mbind nag bu ñu ko waxee nag ñoo ngi ci barabu Cheikh Sidi Muxtaar Mbacke ñu fi nekkoon xalif général des mourides te yàlla def tey jii nag mu ñibbi si guy mbind gii ñu ne fi barabam ab taalibeem rek jóge Bakel di ab sarafa ñëwoon fii fi moom jox ko saa di ànd ak moom yàlla dogalee mu ñëw fii nag Cheikh Moussa taawam nag ni ma naa ñëw wattu barab bi toog fi moom loolu de laa fi nekk fas yéene nekk fi di jàngal Quran di jàng ay xasaayid li ma mën tey wattu barab bi rek ba ngoon jot beeg ma ma tëj. du changé maanaam léegi nag diñ ko day gën a neex sax ndax dina am foo jigéen ñi fu ñuy jaar ak góor ñi fi ñuy jigéen ñi góor ñi góor ñi gis jigéen ñi. barab bi daal moom nañ ci jublu ndax sëriñ bi li ñu yoroon lépp defal na ko sëriñ Touba amoon lépp jox na ko sëriñ Touba ñu ne nag leen amoon leen amoon mooy fas yéene liggéeyal sëriñ Touba ci li ñu liggéey sëñ Tuubaa nag li ko dal lépp mooy bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñun nag li ñuy dal sëñ Sidi Muxtaar mooy nan ko bëgg te buñ dellu ginnaaw nan jàjjar gopp yi fas yéene ko bay bu lii paree ñu wutaabi leen kàddu maçon yi ñu jàpp ni fii ak ay ñetti weer ci kanam liggéey boobule dina pare ba jébbal ko ki nga xamante ni si ni mooy jëwriñu sëriñ Baara ci guy minute di Cheikh Moustapha Mbacké jooy nanu diinay yow di kasaaka nasraanu